alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala yëngu-yëngu jamono di politique benn kàddu yëngu-yëngu li ma ci am mooy li may wax nit su la yëgee nga yëg ko ku la yëgul bul ko yëg ñun Medina Baye lañ am ak Kaolack gi ndax suñu baay lépp lu wax al Kaolack dana ca dugg ndax bëgg gëm bëgg Kaolack ak sopp bu mu sopp Kaolack Medina Baye nag ñun ñàkk nañ bopp ba ñu Cheikh ñas Niass ñaanalee barke ndax tëdd muy dox weesuwul fii mu wóor na la yow climatiseur bi ngay tëdd wóor na la ne yàlla mayu la doole joo xam ne mën nga ko fay yaa ngi lekk-lekk gu neex wóor na la liggéeyoo liggéey boo xam ne yàlla may na la ko waaye barke yàlla jox na la ko barke boobu nag su la ko joxee waroo yéem kenn kenn waru laa jaaxal tey damay gis yoo xam ne day metti ci sama xol man ay ñoo xam ni man de nawloowuma ma leen nawloo naa leen nag ci askan nawloo naa leen ci loo xam ne ci seen melo maanaam doomu aadama ak doomu aadama waaye soo demee ba ci biir wóor na la la tey am na foo doon toog ñemewuñ la faa fekk toog waaye xaalis buñ leen di imposer wane ne am naa xaalis rek damaa war a tolloog yow mbagg ba war laa teg ci suuf ñu koy nangu Médina war nañoo bañ loolu genre politicien yii di ñëw ñuy jël suñu jumaa jii nga xam ne moom lañ am te Cheikh Ibrahima ñas di dox ci li nga xam ne mooy xam-xam dox ci sharia léegi-léegi damay xool ba si ka ma ne ana ñu ñun waa Médina ci xam-xam gu mag ana ñu ñun ci sharia gu mag jël ñoo xam ne xamuñ xaala wala kasiran suñ ñëwee ñu ñëw ci kanamu jumaa ji ñu leen di ubbil place kanam yi di leen fa teg ngir lan ngir am am ngir lan ngir lan loolu dafa war a jeex ci Médina te suñ ñëwee fen ñu bañuy bëgg dee suñ paree dem fen googu nag mooy jeex ci Médina amul kenn ku mënti doon amul Moon Njaay Rahma amul Pape Demba amul keneen ak keneen man maa jaar ci tur yi wax ko nañ ñu respecté xam ne Médina baay gii li ñuy ñëw di ñu ko wax nañuy ñëw di ko def ñu koy gis su leen neexee ñu dem ci ay nit jox leen xaalis ñu téye ñooñu défendre leen loolu seen problème la waaye liñ moom te bokk ko ñun ñëpp nañ ko teg ci dëgg dëgg mooy dëgg Macky Sall moom moo ñu ameel fay waaye ñun ameeluñ ko fay bañuñ ko ndax duñ bañ nit waaye defal nañ ko lu nekk lépp lu ñu war a defal président defal nañ ko ko jëf joo xam ne jëfal nañ ko ko jëfal nañ ko ko ci Kaolack gii waaye moom ana tey lum ñu jëfal wan ma lenn loo xam ne Macky Sall def na ko fii toujours dama koy wax nañ ma ko wax suñ ma ko waxee wan ma ko ma ñëw sukk jébbalu ci moom APR la ci laa bokk waaye man damay sanctionné APR sanctionné APR mooy lan mooy lim may wax musuma koo gis li muy wax sama dëkk musuma koo gis te man sama dëkk laa am waaye rawatina sama intérêt mooy Medina Baye na ma wan rek lu mu fi mus a def su ma ko wanee ma sukk jébbalu te loolu nag duñ ci dëkk bis ni tey maa ngi wax nit ñi nañ yeewu ku mu neex yaa yor sa carte lépp nag sëf ba mu des marron bi muy bopp fas bi ku am looy sanctionné sanctionné ko demal jox ko aar wala nga dem jox ko yeewu askan bi nga seeti ñeneen am nañ ci ay doom nag ñu baax suñuy doom lañ ku mel ni Pape Demba bi tey suñu doom la bëgg nañ ko ngir Cheikh Ibrahim luñ bokk waaye waxuñ ci wàllu politique am nañ suñu doom moo xam ne benn jolum la taalibe Baay la ku bëgg Médina la kuy jéem a defar la na ko dimbale ndaw la ndaw la kooku mooy politique kookoy politicien ndaw la toll na ci ndaw muy benn jolum boobu na ko jàppale moom président te fam nekkee xam na lan mooy lu ñuy defaree nu ñuy tabaxee nu ñuy tegee na ko jàppale dimbale ko Médina gii boobaa mu mun ñoo jàppale su ko jàppalee rek dafa ñuy jàppale kon loolu lañ koy wax ci boppam bañuñ ko de waaye dinañ ko sanctionné ba xaar leneen di ñëw loolu lañ bëgg te loolu laay lancé salaamaaleykum wa yéenay liggéey fay du baay bi ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV yàlla yàlla jox leen